gouverneur ak waa CIZ ñu ñëw pour ño xamné ni nii liggéey liggéey euh, bu yag lañ leen défalon formé leen ba tay ñu mëna défar seen produit mëna défaral seen bop seen produit man ko commercialiser. lool nak ñu ci ciy gërëm bu baax CIZ bi nga xamné ni euh, madame Fatma Sy mi représenté leen nek ko xamné ni vraiment toujours mok chambre dañuy liggéey ak gouverneur ah, mu représenté fi gouverneur représenté le président de la république ñun ñëpp ñu gis. président de la république li mu wax ci nan lañ war a jàppalee jigéen ñi bi mujj mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey liggéeyu kër ñu formé leen ba nga xam ne nii danañ mën a am liggéey bi ñuy liggéey mu xarañ ba nga xam ne danañ am seen euh, seen seen diplôme suñ nekkee ci kër ñu mën leen a respecté ñoom tamit ñu mën a respecté euh, charte yi nga xam ne nii mooy am ci liggéey ba nga xam ne nii euh, yenn bañante yi wala yenn xuloo yi du am té loolu dafa war jigen ñep ndax Sénégal 90 ci jigen ñi dañuy liggéey liggéeyu kër. suñu liggéey la lu ñu sas la lu gouvernement du Sénégal sas à travers la coopération allemande pour ñu jappalé gouvernement du Sénégal ci mbirum xey ci mbirum formation ndox am solo la bala nga am xey bu bu correct bala nga am xey bu décent faaw nga jaar ci formation ñoom suñu buntu suñu approche mooy former leen ba pare jox leen ay jumtukaay ndax ngeen suba ngeen mën am xëy jàppale seen askan jàppale également seen communauté. donc lii suñu suñu wareef la suñu mission la dañ fi nekk di gunge institution yi nga xam ne ni état bi moo leen fi teg pour ñu mën a sukkale également Sénégal. kuy defar faw jigéen fekkee lu leer la donc soo gisee composition déjà Sine Saloum nga xool métier yi nga xam ne ni am na fi solo.

balaa tey am na loo xam ne ni def nañ ko processus la ñu ngi koy lëkkaloo ak waa chambre de commerce am na formation yi fi jot a xew yu bëri euh, tey ce matin ñu ngi fi woon di euh, samp kuréel bi nga xam ne ni mooy boot bépp jigéen boo nga xam ne da ngay yëngatu ci mbirum saabu ak mbirum détergent ñun ak waa chambre de commerce dañoo lëkkaloo pour mën a gunge gunge gunge gunge également jigéen ñi gën a mën am assise économique. ñu ngi rafetlu bu baax.

li ñu bëgg mooy tendre vers le développement durable te pour ñu mën a yegg foofu foog ñu am ay nit yoo xam ne am nañ euh, capacité yi am nañ qualification yi ba mën a jàppale nguur gi ci politique yi nga xam ne moom la fas yéene amal ci wàllu woowu la ñu daje woon tey euh, niñ ko xamee euh, dëkk bi nekk na bërëb boo xam ne lu mel ni wàllu mbay am na fi dooleeg yu mel noonu ba tax na ginnaaw bu ñu liggéeyee ci wàll boobu pare day aju ñu mën a transformer produit yi nga xam ne moom lañ ci am te jàpp naa ne ñi fi teewoon tey am na lu ñu leen jàngal ci wàll woowu dina tax ñu mën a dem ci marché bi jongante ak seen yeneen i naataangoo euh, ba mën a jëmmal liggéey bu am solo bi nga xam ne réewu Sénégal mu ngi koy def ci wàll